ما خاطبه من قال إن الله معنا عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره اللمين بكلكلي وجسدي ناجيت سلعة العظيم بالحب مع در النسيم ولي كان بعظيم وسالني عنه السليم نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلا يخاد في السفر خلي وعيبي بالشفار مستغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد dañoo نيو في في ndigalal شيخ Mamadou المنتخب ndigalal porte parole am Cheikh Mamadou Bachir ibn Serigne Abdoul Khadir waaye ba tey it ci ndigalal ñi nga xam ne ñoo jëkkoon dox ay tànk yu rafet ñu ñëw di ko mottali ndax ñun ay taalibe lañu rek yoo xamante ne dañ muy dox doxloo waaye ku ne xam ne ne kilifa yi dox nañ li ñu ndox dox ba noppi sëñ Mouhamadul Bachir euh, ñi nga xam ne moom la ñuy xamee ci sëñ Bass Porokhane bokk ci njabootu sëriñ bi sëñ Mouhamadou taxa jógoon nañu ngir rek xam ne jàmm rek moo baax ci réew mi moo jigit waa réew mi bi jafe-jafe amee aw ay amee sëñ Mountakha yëkkati ab lim di ko séddale kon ñoom la ci motoon ndox ndox nañu ñun nag amuñu ay yenn kàddu yu ñuy wax lu dul euh, ñëw jébbal si li nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko jagleen njaboot gi kon Euh, ki nga xam ne moo fi bàyyi ko euh, way juróom jigéen nekk fii ñu ñëw fekk si ko kon imam ñoo ngi ñëw di la ko seereloo di ko seereloo tamit chef de quartier bi ne sëñ Muntaxa moo ñu yónni yëkkati na ñaari million jox leen ko kon mu doon loo xamante ne dafa ànd ak nag ay ñaan ànd nag ay ñaan yoo xamante ne ñaan yi sax mu ëpp doole ndax ñaani yi àdduna ak àllaaxira lay boole kon lii ñu jàppale ko soxna si njaboot yi euh, te ñu ñaan loolu mu gëj fi mu a fi am mukk ci àdduna euh, kon loolu daal moom laa doon jottali li ci des ñun dañoo baaxoowul am lu ñuy wax dañ ñoo yónni te àggalaguñu ñuy def war nañ fi jóge euh, dem ci yeneen i barab am na ñoo xam ne ay tawat lañu am ndax ay blessure lañu am ñenn ñi ay blessure yu grave la dañ leen catégoriser ñenn ñi ay blessure yu sévère la ñenn ñi tamit yoo xamante ne c'est modéré waaye ñett yëpp ku ci ne xool nañu lu tolloog ak xi lañ la war a jox ñu am ci ndigal ba juboo ci suñuy kilifa loolu la ñuy ñëw di ko dox si jërë ngeen jëf وما يودي الاعتلال من للجنان بالحلال قد قادني بالخضر سفى بقاي كونيا قديم مبق عونيا بمن أدام سونيا به عن المكدرين ñu ngi nuyu kilifa bi nga xam ne moo leen yebal tey mooy kilifa ñëpp parce que woone na ko doxalin bi woone na ko ne moom njaboot bi yëpp njabootam la kon moom yéene mooy ñëpp nañu nekk ci jàmm même bu deful woon lii sax bu toogoon ñaan rek ñaan boobu rek dooyoon na waxatuma nag ma jël lu ma yor mu teg ko ci ay loxo yu wóor dox ñëw egsi ba fii fekk si njaboot bi nga xam ne ndogal yàlla moo dal seen kaw te loolu mooy rôle jullit rôle jullit mooy boo gisee métit ci biir jullit yi jàppal métit boobu yow yaa ko moom te moom xalifa bi noonu la doxalee man dama koy suivre boo déggee waxam yépp moom nitu jàmm la jàmm lay dox jàmm lay wax jàmm la yéenal ñëpp kon kontaan nañ ci moom yàlla na ko yàlla yokk wér ak wérle yàlla yéenu bi mu yéenu yàlla yàlla na ko yàlla yàggal ci loxam te mu ànd ak wér ak yéen ñi nga xam ne tam yéen ñoo koy jàppale tam yàlla neen yàlla may kattan ñu koy koy jàppale bi jaay nabi Mustafa, njabot bi tam Fontan nañ ci mom ñun tam amuñu leneen dudul ñaan ku la defal lu baax lo mënul mënul mo wax wax wax mën ko mën nga ko wax jërëjëf kon wax nañ ko jërëjëf kontaan nañ ci parce que fii karsi boo ñëwee ci karsi ñaar rek ñaar rek nga ñaar rek nga ci ci chef de quartier imam kon ala kulli haalin ñun daal kontaan nañ kontaan nañu kontaan nañu trop yàlla na ko yàlla yokk sutura yàlla na ko yàlla gën a guddal fanam yàlla na ko yàlla yàggal ci kanam njaboot bi mbébét bi nga xam ne moom la am ci Sénégal yàlla na ko yàlla defal ëpp njortam te incha allah xam naa ne bu bu ko yàlla defalee loolu Sénégal dana nekk ci jàmm ñëpp xam nañu loolu kon yàlla na ko yàlla defee noonu xaaga asalaamaaleykum wa Ah, ñi ngi sant bi wér a wér a wér wér di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàlla yàggal mu ànd ak wér ndax tiis bi diisoon na suñu kaw trop trop trop trop ba dama jëloon benn décision sax ma ne dañuy def plainte wante depuis ku tedd ki jóge wax si ñu ñëpp dafa bës suñu xol ñun amuñu ku dul mun Muntaxa yàlla na fi yàgg wér ñu fi ñëw yëpp nag bii moo ñu si gën a neex bii moo gën a bës xol yi ndax su yónnee délégation bu mel nii waa taas Tarqiyyah ñu ñëw teew fii si quartier bi man loolu rek doy na kontaan nañu trop trop trop trop trop trop vraiment kontaan nañu ñu ne lépp nag loo xamante ne jàppoon nañ ko suñu xol giif na suñu xol giif na. nañu ñaanal sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér te sens la de lii moom sens la Sénégal parce que kilifa demoon na ba rafle wante bu neex ree jóge sëñ bi taxaw ñëpp seen xol sedd na waaw kontaan nañu trop trop trop bég yàlla xam na ne mënuma wax fu mu nekk nii ndax xol bu fees xol bu sedd mënumaa wax waaw ndax sama lépp Tuubaa sama lépp Tuubaa سيد منتخا جرجف جرجف سيد منتخا جرجف يا الله يا وجالبات الظلم نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير نحوي ويحين بالله ذا تعلم يقود قتي المريد للقادر الباقي المريد مسحسيا كل مريد إلى سوى المعلمين نبينا محى لخير بخير سات والقرار وليس ينعون الشرار بعفو رب الأكرمين